kook waxtaan bi nag ñu dooree ko euh, monsieur le ministre ak arène politique bi nga xam ne fan yi nemmeeku nañ ni dafa jax lool euh, ñenn ñi di def alerte ci fitna boobu nga xamante ne ñu ngi jàpp ni boo moyul mën na dugal réew Sénégal si si guuta euh, tey nan nga gisee déjà yenn sànnante xeer yi ñu ci nemmeeku muy jóge ci ñi nekk ci pouvoir bi di jóge également ci ñi nekk ci opposition bi waa jërëjëf xam nga politique moom léeg-léeg moo coow ñuy ànd mm-hmm. fii xañ na lu lu mel noonu aussi léeg-léeg daana fi am kon mën a sunu ne euh, guleet ay way politique di di jàmmaarloo ci ci yenn yi euh, am na ñu gis ne intensité bi nga xam ne am na ko actuellement xañ na néewaana ñu jàng fa mais aussi bu ñu bu ñu delloo ci ci ginnaaw euh, am na jàmm daana tàng parce que Sénégal commencé wu dem commencé wu bërki dem boo demee ci diggante Blaise Diagne ak Ngalandou Diouf mm-hmm. c'était très chaud ay eh, sangoor ak Lamine Gueye eh, moom itam tàngoon na jër ba ay bakkan ci di sax même ci ci foo xamante ni bi ay kër diina lay doon. Eh, Maître Abdoulaye Wade opposition ak Abdou Diouf opposition bu tàngoon la. kon aussi loolu day mel ne vitalité vie politique bu Sénégal léeg-léeg muy indi yu mel noonu. waaye aussi ñu am chance su waxtu wuñ demee rek ba ba ñu bari ragal ne day basculer. yàlla suturaan ñu. ba ñu am ay euh, ay solution toog jàmm dellusiwaat ndax xañ na réew mi am na foo xam ne mosu fa àgg te par rapport ak yenn réew yi africain yu bëree bari te même Sénégal am na am na trajectoire Sénégal am na am na chance am na loo xam ne aussi moom la ñu xamee parce que mm-hmm. aussi ak lu ak lu ñu mën di wax euh, foncièrement Sénégal yi nitu jàmm la loolu mooy li wér. Mhm. foncièrement Sénégal nitu jàmm la. Mhm. Euh, moo tax nag lu mu tàng tàng rek euh, jàpp nañ ne xañ na jàmm mën na cee mën na cee mucc te aussi xam nañ xam naa dañ ñëw ci beneen am nañ ay ressources yoo xam ne bu ñu ko utiliser sunu borom mën nañoo defal sutura. c'est vrai et justement ci ressources yooyu souvent bokk na ci kilifa diine yi nga xamante ni euh, bu ñu génnee wax bu tension amee daf koy apaiser nit ci bàyyi mais ñu remarqué ci époque bi ñu nekk nii ci kil yenn kilifa yi yëngatu ci wàllu politique am na ci ñoo xamante ni. kilifa diine yooyu bu ñu waxee dañ leen di tànkamlu euh, ñenn ñi également di mel ni ñu tëx parce wala euh, parce que bu kilifa diine yi waxee du ñu du teewul dañuy toog ci télé yi di insister ci la fait xëy na yenn kilifa diine yi seen rôle yi mataluñu ko comme il se doit. Euh, kilifa diine yi mosuñu ñàkk def li ñu li ñu war a def. Mm-hmm. yi nga xam ne moo fi jaaru mois de mars naa ne wane wane woon na ko. Mm-hmm. te commencé wutoon foofu c'est une longue tradition. Mm-hmm. ba ak si foofu même tubaab yi. booba kilifa dinañ dañoo amoon taxawaay boo xam ne amoon nañ ko ci ci jàmm réew mi. ci soir dañ leen nettali ne la grève cheminot ba fi gënoon a metti mm-hmm. Dakar ba ma ko kilifa dinañ ñoom Cheikh Amadou Fadal ak sëñ Babacar ci ñoom la sedde mm-hmm. day sedd ci ñoom ndax seenu ñaan. Mm-hmm. mais aussi day sedd ci ndax seen i jéego yoo xam ne danañ ko seqi te nit ñi am foo xam ne fa ñu leen teg ak ak nu ñu leen rusee. loolu moo sabab ba Sénégal da ngay dégg ñu ne kilifa dinañ c'est des régulateurs sociaux. loolu nag moom jàpp naa ne. tey jii la gën a sax tey jii la gën a am. Mhm. ndax koo ci jël muy Tiwaawan muy Touba muy euh, Kaolack. fu mu ci man doon ci kilifa ci ci kër ci kër diine yëpp dama bàyyi gën a kër. Mhm. Euh, amu ci amu ci kenn koo xam ne dana tax wax sénégal yi di ko di ko taxamlu mais li nga xam ne mooy li am solo. moo di aussi rôle boobu nga xam ne ñu ngi koy joué ak statut boobu nga xam ne aussi sunu borom euh, jox na leen ko. ak mhm. charisme bi ak karir bi ak dayo bi. loolu aussi faw ñu nangul leen ko. c'est extrêmement important ñu nangul leen ko xam ne ñi chance nañu ngir ñun parce que néewaan réew yoo xam ne am nañ lu mel noonu bu ñu demee ci yenn réew yi nga xam ne ñoo ñu jege te même bi ñu jël indépendance sax ñu nekkoon benn ñu nekk fédération boo gisee ñoom trajectoire bi ñu jël parce que dañu dem ba tarixa ya fa nekk ak kilifa diine yi néew fa doole ñu jël beneen trajectoire bu ko tëg bu Sénégal mhm. Sénégal te jii kilifa diine yi ak tarixa yi mën naa ne ñoom ñoo te yëf yi ba ba euh, ba en tout cas yenn ay yi euh, amu fi naka la leen koy nangu nag mooy ñu jox leen seen place mhm. mi nga xamante ne bi aussi suñu borom jox na leen ko mhm. parce que bu ñu nekkee ci jàmm loolu ñun ñëpp dañ koy constaté da ngay gis ñoo xam ne day mel ne sax duñ leen bëgg a teg bët te loolu yaatu na ci réew mi de du way politique yi rek ba ci yenn intellectuels yi yenn bon ce que j'appelle les laïcards euh, am na ci ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne sëriñ si nañu génn ci wàllu politique nañu génn ci ni réew mi doxee mhm. nangam ak nangam mhm. am ñoo xam dañuy dem naan sëriñ si ñoo yàq réew mi mhm. te waxtu wu ñu jaaxlee waxtu wu ñu tiite daw bëgg a làqu ci seen ginnaaw sëriñ si nag loolu aussi dafay day mbir mu xaw day waar il faut ñu nangu leen leen yàlla def ñu nekk jàmm ñu nangu leen ko ñu ñu ñu ñu jub aw ay parce que sax du ma ñu nekk ci ñu jub ay aussi ñu nangul leen ko. loolu aussi ñoom ala kulli àll li ñu war def danañ ko def. Mm. mais loolu mais mais loolu aussi dana yokk xañ na seen seen ci seen en tout cas day gën a légitimer seen yenn intervention yi ñuy def. Mm-hmm. kon jàpp naa ne toute la société sénégalaise dans son ensemble moo am intérêt. Mm-hmm. ci suuxat ak dëgëral tradition boobu nga xam ne am nañu ko. Mm-hmm. su boobaa rek. ñun ñëpp bu ñu tëddee mën nañoo neloo xam ne réew mi du mës a basculer euh, dans la violence. c'est clair Mohamed. alors sëriñ bi au-delà des chefs euh, religieux yi nga xam ne rôle bu am solo la ñuy joué ci ci mim réew euh, et la responsabilité des acteurs politiques dans tout ça est-ce que jotul ñu dal di def lu ñu duppee un dialogue franc et sincère ñoom acteurs yi en tant que tel parce que quand même tension politique bi ñoom ñoo ko animé ñu waxtaane ñu waxtaane ko autour d'une table xool yan yoon la ñu war a mën a jaar pour de crise est-ce que d'accord nga ci un dialogue franc et sincère. bon dialogue dialogue mos a jóg ci réew mi. Hmm. ci dialogue national la ñuy jógee. Hmm. loolu yéen ñëpp sa en êtes témoin hmm. ba am ci consensus autour de points yi nga xam ne même ci la ñu waroon dem élection foog naa ñaari points moo ci amoon ay jeexi jaax. su ma su ma su ma fàttalikoo. mais day mel ne boobu jubawul nañ ci. lu lu bare bari. Mhm. kon réew mi mos a ñàkk dialogue. non su ma nee dialogue il y deux ans réew mi mi ngi ci euh, jafe-jafe ci tension euh, ci ay euh, dossiers yi nga xam ne ñoo ko composé daan ci ñëw sax est-ce que durant ak boobu ñu toog yépp nga xam ne tension bi mi ngi plané instant bi à l'instant tin tin tin est-ce que jotul acteurs yi retrouvé wu waxtaanee réew mi jamono ji ba ñu am une sortie de crise. dialogue waxtaan bi am na solo baax na mbërte mën a ñàkk. Mhm. mais loolu aussi dañ koy def au niveau des institutions. loolu tey depuis deux ans réew mi xaw na jax mais pourtant organisé bi ñaari élection élection yi amul xeex amul xuloo amul dara ça s'est très bien passé et même élection yi bi mu jàllee y a pas de contestation kenn ku nekk nangu ne résultat yi baax na nga dem euh, toog sa maire bi fekkee gagné nga wala nga toog sa conseil départemental wala nga dem tag sa mu député nga toog foofu donc kon mën naa ne aussi réew mi amul blocage à ce niveau là comprendre li ma la mm. donc réew mi amul blocage ci ci niveau boobu. léegi nag boo demee assemblée nationale opposition maa nga fa pouvoir maa nga fa c'est un espace de de dialogue mais bu dul loolu réew mi mi ngi dox. président techno gouvernement gouvernement aussi mi ngi liggéey li nga xam ne mooy li mu war a liggéey kon tey li nga xamante ne bii mooy li am solo moo di li nga xam ne mooy consensus bi ñu am autour de de la nation sénégalaise. ak ses fondamentaux ñun ñëpp ñu nangu loolu respecté ko dox ci jàmm ni ñooy. parce que réew moo xamante ne bii ñu ngi organiser régulièrement des élections même parfois dañu naan élections yi mënut am parce que xat na mais teew dañu def effort ba élections yi am na mu war a amee bu ñu demee résultats yi leer nañ ku gañ a gañ ku gañ a wut aussi félicité nga xam ne mooy gañ ko en principe. nekk réew moo xam ne nekk na ci yenn jafe-jafe yi kon foog naa ne euh, ak ak réeroo dinay dinay am mais kenn ku nekk bu delloo see bu delloo see xelam rek def li nga xam ne moom mooy waru garam jàpp naa ne euh, réew mi ci jàmm lay lay nekk maintenant ak nag ndimbalu ñi nga xamante ne bi xañ na mooy kilifa dini ngeen wax léegi. est-ce que le président on peut s'attendre la République woo acteurs politiques yi ci obédience bi mu mën a bokk moo xam société bi waxtaanee quand même nga xam ne mooy fii réew mi toll. président dafa am loo xamante ni mooy euh, mooy sas loolu laa koy tuddee. mooy sas parce que sax ni ngi léegi ni ngi léegi dañuy juum naa buur borom leen président sas la am boo xam ne njaboot gi nga xam tey jii ñoom ñoo ko tànn ci leen ñoom ñoo ko sas sas boobu lan mooy réew mi nekk ci jàmm sas mooy lan mooy réew mi am émergence kenn ku nekk am foo dëkk kenn ku nekk amul xëy kenn ku nekk am loo lekk bu bëggee faju faju boo bëggee jàng-jàng donc loolu li nga xamante ne bii doomu aadama xañ ne waru koo mën a ñàkk président mi ngi sas mi ngi sas woowu mu am beneen sas aussi au niveau du respect des institutions loolu aussi réew bi dañ ko ko sas ne ko kat jox leen réew mi kon li nga xam ne mooy les différentes yi fi nekk muy moom bi nga xam ne moom la yor muy le pouvoir exécutif li nga xam ne mooy pouvoir législatif li nga xam ne mooy pouvoir judiciaire ba ci yéen ñi waa presse bi di jouer rôle bu am solo loolu lépp aussi leen lu ci nekk tegu ci aw yoon. président mi ngi ci loolu. mi ngi ci loolu. tey jii moo tax ma dal li nga xam ne ñun ñëpp nag moom la ñu def parce que aussi ñun bu ñu ko sesee ba pare dañoo war nag jàppale ko. ci loolu xam ne ci démocratie euh, li nga xam ne mooy ak nokkeem li li ak ñoom la respiration de la démocratie. c'est les élections. entre les élections nag ñu apaiser réew mi kenn ku nekk nekk ci la war a nekk kenn ku nekk dem. wuti euh, wuti mbooloo. mais diggante bi gouvernement bi ñu dëgëral ko. assemblée ñu dëgëral ko. justice ñu dëgëral ko ñun ñëpp nga xam ne ñun ñoo voté la constitution sénégalaise. teg ko fi ñun ñëpp tënku ci li nga xamante ne bii mooy luwaay réew mi ak li nga xam ne mooy li réew mi santaane. Mm-hmm. donc président moom loolu. mooy mooy euh, mooy rôlam mm-hmm. te mi ngi ci loolu. Mm-hmm. alors euh, monsieur le ministre coow li coow li ñaari mbir la ñaari nit la mooy le président de la république ak Ousmane Sonko coowal ñetteelu mandat ak affaire Sweet Beauté mooy lëmbee actuellement réew mi. est-ce que coowal ñetteelu mandat. ñetteelu mandat. oui bu njiitu réew mi Macky mhm. Sall. ak affaire Suisse Sweet ci bu Ousmane Sonko fu mu nii looloo yokk tension bi ci réew mi est-ce que jotul ci ku ci nekk ci ñoom ñaar ñu jël seen ay responsabilités par rapport ak situation bi nga xamante ne ne moom mooy prévaloir ci Sénégal. bon beneen bi moom ma wax ci du jomb ci man parce que par principe je je n'en parle pas. <laughs> depuis le début de cette affaire là. d'accord mosuma ci déglu audio. mosuma ci seetaan non ma ci nekkul loo xam ne lu may euh, lu may wax bëgguma ci prononcé wu parce que j'ai j'ai un statut social qui me permet pas euh, ma ci mm-hmm. ah loolu moom damay bàyyi rek bu dem beneen bi nag muy muy affaire euh, bi ngay wax deuxième quinquennat mm-hmm. man man loolu laay wax loolu juñu naa ko léegi